Euh, juge d'instruction la fële ci tribunal bu Pikine bon yàgg jëflanteeg mbiru mbiru viol comme dafa am loi bu bees depuis 2020 bu criminaliser viol boo déggee criminalisation mooy que dañoo yokk daan bi te forcément dossier bi day dem lu ñuy wax information ngeen ñu koy woowee ci olof l'enquête donc euh, tey jagleel bi mooy waxtaan ak journalistes yi ci approche bi ñu war a am ci traitement yi je ne suis pas un comme ni ma ko waxee des des médias mais très souvent ñun en tant que juge ñun en tant que acteur dañuy gis ay jaawatle wala xëy na ñàkk xam lay doon da nga dégg ku la ne procureur bi décerné mandat d'arrêt fekk procureur mënul décerné mandat d'arrêt donc day am ay confusion souvent ci traitement bi aussi am na ku ko wax sànq des fois victime bi c'est pas qu'elle se sente encore plus violée mais elle est elle est recroquevillée de sorte que même bu ñëwee ci dëkk si kanamu juge bi du nangooti wax parce que tellement que on la y a une certaine presse bu bind ci bu bind ci mbir mi ak nu mu ko bindee. ni ñuy enquêté viol warul nekk comme ni ñuy enquêté beneen dossier infraction financière ou parce que dafa am ay questions spécifiques dafa am un traitement spécifique dañu war a am ay euh, ay je sais pas cellule wala place yoo xam ne fa la ñuy teg victime yi victime bu am traumatisme dafa am nu ñu koy dégloo dafa am nu ñu war a traité ay dossiers très souvent yenn enquêtes yi en matière de viol euh, elles que juge bi comme loolu mooy premier matériau am il a il souvent du mal à à boo ñëwee ci instruction cabinet yi dañoo surchargé te magistrat yi bëriwuñu bon dossier viole dafa laaj gëstu parce que ki ñu war a ki ñu ki ñu ki ñu ne dañ ko viole xëy na àddunaam yàqu na mais ki ñu war a tëj tëj bi minimum bi 10 ans la donc pour nga tëj kooku foog nga xool teg ko teg ko fu leer du rek Massamba wax na wala Madamba wax na soit c'est des éléments matériels solide soit c'est une enquête enquête qui a très bien très donc de sorte que boo jógee instruction après dem euh, jugement souvent opinion bi du mun a du mun a comprendre la moo tax ñu relax euh, ñu acquitté nit parce que très souvent element yi éléments yi éléments yi day des parce que juge bi moom du day topp ni nii opinion bi bëgg rek déedéet moom day topp li nekk ci biir dossier moom noonu noonu noonu noonu la ñuy àtte waa projet bile dañ koy amal fii ci Sénégal mu concerne juróom benni raison ma lim ko léegi muy Dakar Thiès Saint-Louis Tambacounda Kaolack Diourbel donc projet bi ñu ngi koy amal pour ñu xeex lépp loo xamante ni mooy violence sexuelle muy métital ci awra ñu gën ci ràññee li ñuy wax siif di viole wala fawee xale muy pédophilie donc projet la boo xam ne dina am ñaari at liñ ci jublu mooy ñu fexe ba communauté bi yëpp amaat beneen taxawaay beneen gis-gis ñoom ñëpp mën a xam nan la ñuy def pour jàppale ki nga xamante ne mooy ki loru ci mbir bi muy pédophilie wala muy viol ñu xam nan lañ koy taxawoo nan la koy jàppale moo xam ki nga xam te ne acteur la boo xam te ne dafay yëngu ci li nga xam te mooy xeex lépp luy xam ne mooy siif wala lépp looy xam ne mooy mettital doomu aadama wala mu ci intervenir moo xam tamit acteur média yi la mooy ñi nga xam te ñoom ñooy traité information yi maanaam ñoom ñooy siiwal li nga xam ne mooy lii bu amee ci niñ koy siiwalee si loolu moo ñu taxa dajaloo tey fii pour nga xam te tey information boobu amee ban façon lañ koy siiwalee ba nga xam ne du ñu lor ki nga xam ne mbir mi si kawam la dal du lor ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi mu ñi ko sës parce que souvent dañ naan mbir bi bu dalee ci nit du moom kese lay métti mais ñëpp ñi ko sës dalee ni métti du coup am na noo xam ni dañ ko koy traité comme ni journaliste yi faral di def dañ lay jox initial ba jox la quartier te soo joxee initial yi ba joxe quartier nit ki mën nañ ko repérer ba xam kii la alors que mbir mi dafa laaj sutura comme ni ñu koy waxee pour moom mu mën a nekkaat ci société parce que li ko dal nattu la donc ñëpp ñoo ci war a taxawu jàppale ko mais aussi journalistes yi tamit mën nañ seen façon bi ñuy euh, traité information parfois mën nañ fexe ba nit ñi di briser le silence maanaam ñi nga xam ne bëgguñu siiwal parce que lu bëri dañ naan nañ ko def fóotu biir nekk ñoom buñ ci amee lu luñ ci cof ñu fexe ba nga xam te nit ñi dina xaw a am luñ ci yéeg ba ñu ubbi euh, information boobu nga xam te ne loolu dinañ ko mën a traité ñu bañ ko di nëpp nëppal save veut dire que ñu participer à que li nga xam te ne mooy dénonciation nit ñi favoriser ko te bañ a toog ci kër yi bu leen bu leen dalee rek ñu ne nañ toog muñ ko alors ko loolu ñuy def noonu dama koy wax souvent tey bi ki nga xam ne yaa ngi koy nëbbal moom mën na amaat yeneen victime yoo xamante ne dinañ tombe ci kuwam alors que donc journaliste yi mën na participer si loolu communauté bi mën nañ participer si loolu li ñuy wax tamit que ne journaliste yi dañuy traité information bi banalement maanaam dañ koy sofantal su ma mënee utiliser terme boobu dañ koy sofantal alors que lu am solo la loo xamante ne ki mu dal métit ba mu cay yëg ak ñaka sës ku ko xamoon wala mu dal la wala mu jégale di nga xam neneen ñoo koy traité du coup looloo tax tey ñu daje pour ñu xool ñun ñëpp nu ñuy taxawoo ñi nga xam te ni ñoom ñooy victimes yi fexe nu leen di jàppale ba nga xamante ni dinañ leen mën a xeeteel information bi ci nu mu gënee mucc ayib ba nga xamante ni loraange du ci am mais ndam rek moo ci am. ñun taskatu xibaar yi dañuy faral li ñuy nekkee ci actualité bi des fois dinañu yóbbee euh, ñuy euh, ñuy tooñ. Euh, duñ ko tey sax ñenn ñi nga xamante ni kat euh, lii di euh, dañu dañoo nekk ay victimes ci wàllum violence sexuelle ak yu ni mel des fois duñ koy bàyyi xel yenn kàddu yu ñuy utiliser yenn baat yoo xamante ni ñu ngi koy ñu ngi koy jëfandikoo di jëm ci ñi nga xamante ne ay victimes lañu duñ koy bàyyi xel ba tax na dañuy rafetlu bu baax a baax initiative bi AJS jël tey organiser ay atelier boo xamante ni dina tax journalistes yi donte ñu ngi def seen liggéey ni mu waree mais ñu gën di bàyyi xel yenn sew-sew yi nga xamante ne mën na am effet boo xamante ne effet bu buy metti lay doon ci ñi nga xamante ni ay ay victime viol lañ ak yu ni mel di sant bu baax ah, ci teewaay gi nga xam ne teew nañ ko fi ndax jàpp naa ne jagle la ñu jàppale la ba nga teew ci lu mel nii ndax njàng du wees euh, tey bu ñu fi ñëwee ñu ñuy yeewaat ci li nga xam ne moom mooy traitement information jëm ci wàllu violence faite aux femmes ñu xam ne yenn saay euh, bu ñu euh, amee lu mel noonu maanaam ab jigéen boo xam ne dañu ko sàkku wala lu demee noonu ñenn ci taskatu xibaar yi ba ci ñun ñii sax dañ ciy def ay njuumte maanaam euh, ñoo ngi bind xëy na waaye li ñuy gën a jiital mooy naka la ñuy def ba li ñuy bind maanaam nit ñi daal di koy suivre wala ñu déglu ko waaye du ñu bàyyi xel dëgg-dëgg aqu kii nga xam ne xëy na moom la yëf yi dal ci kawam muy ñoo xam ne lu ci ëpp dañu nekk ci état traumatique muy maanaam xaw a jaxasoo muy métit boo xam ne dañ koy dundaale bu ko defee Euh, ngay bind te bàyyi woo ci xel amaana mën na ko gaañ wala mu gaañ li nga xam ne moom moo di njabootam ba tax na euh, ni ko euh, doyen bi yaay waxee Euh, lii dinañu permettre ñu gën a ajusté waat gën a wagaraat gën a defaruwaat bu baax a baax ngir bu ëllëgee bu ñuy bind wala sax ñuy wax ci nit euh, koo xam ne daanaka dafa dund li nga xam ne moo di viol ñu teg ko ci yoon moytandiku ko bu baax a baax kon daal li ñu mën a wax mooy euh, mbégte mu rëy la ñu am ci jagle gi nga xam ne suñu borom d'abord jagleel nañu ko waaye tamit tànn gi ñu tànn indi ñu fii ngir ñu teewee li nga xam ne moom di séminaire bi lee ñu amee ci ay xam yoo xam ne jàpp nañ ne bu ñu fi ñëwuloon du ñu ko am ñu koy santé bu baax ñi nga xam ne ñoo di AGS waaye tamit di waxaat rek ñi nga xam confrères yi ñu gën wagar bu baax a baax ngir euh, traitement information lépp ñu teg ko ci yoon incha allah. ville de Dakar moom comme niñ koy waxee tout le temps lépp loo xam ni ses concitoyens ñi nga xam ni ñoo ñu fal euh, war nañ leen ko faciliter dañ koy dem surtout lép loo xam ni day dem sur les violences euh, basées sur le genre et c'est la raison pour laquelle quand le maire a reçu l'invitation il a tenu à ce que la mairie puisse être présente que ñu am la bonne information convenirait. Parce que la ville de Dakar, à tout moment, il donne des subventions à des organismes. Et lol, mon Et c'est des thèmes qui nous touchent de premier abord parce que déjà, nous sommes des femmes et nous sommes militantes pour les droits des femmes, raison pour laquelle nous avons été choisis pour de ce point de vue, la ville est présente et le sera après, euh, dans le temps, dans quel cadre la ñuy mën a discuter, la ñuy mën a collaborer. Dakar ak Sénégal moom violence sexuelle bëri na malheureusement niñ koy relayer moo tax formation bi am tey par rapport aux média am solo mais dina am solo tamit ñu def ko ci gox-goxaat yi pour nit ñi xam ni en réalité une victime reste toujours une victime donc c'était intéressant de voir les éléments de langage ce qu'il faut dire ce qu'il ne faut pas dire et am na Dakar am na dans la banlieue am na dans les zones euh, reculées donc de ce point de vue naka la ñuy def ba éradiquer ko loolu moo war a doon suñu liggéey